léegi jamono ji discours diplomatique bi nga xam ne moo tukkee ci Fonds monétaire international daanaka sax amul len loo xam ne da ci soppeeku fii ci Afrique ay yoo xam dañ koy soppi ak i ak i chiffres ak i yoo xam ne tax rek ñu daal di pousse wala sax daal di fomp li nga xam ne mooy état économique national et régional. ba tax na continent noir bii nag di sax léeg day taxaw léeg mu baax léeg-léeg kanam gi nag moom daal di sëngeem lool ba na sax exercice bi nga xam ne dafa nekk sax daanaka loo xam ne kat min nañ ko waaye itam yéen kaay daal di koy jël tekk seen i xët ba tax na kat daal di nekk li nga xam ne mooy agrégat économique waaye gis nañ tamit sax loolee daal ñu ngi koy jaarale ci léeg wax ci ab rigueur scientifique waaye itam koppar yi fan la toll ak li nga xam ne tamit moom la FMI def ak ñi xam nag ñooy borom xam-xam yi ñoom naam sax am na ci ay documents yoo xam ne ay documents administratifs la loo ne kat mën nañ cee teg loxo waaye Fonds monétaire international ci saa su ne rek ci présence am fii nga xam mooy Afrique moom nag dafa nekk sax ci bopp banque mondiale ak li nga xam mooy finance internationale lu ko neex def comme goo xam ne dafa feebar lool daal di lompoñ ba koom gi naam sax feebar na daa di koy jagat jagatee yóbbu ko rek ci ab médecin daal di koy xool. pays de la Teranga nag di Sénégal ak la ko wër dafa daal saa ñu nekkee jafe-jafe FMI daal di taxaw waaye itam Sénégal nag moom li ñu duppee politique d'ajustement structurel fii lañ ko tàmbalee waaye boobu ba léegi daanaka ay régime ñoo fi toftalu FMI nag moom ba tey mi ngi ne samp rek taxaw seen kanam kon di nga xam ne kat mooy gis-gisu FMI moom dañ koy jël def ko dëgg naka lañ mën expliquer Sénégal ak décalage bi nga xam ne ci wàllum koom ak li nga xam ne kam raw nañu daanaka sax ton ñàkk tolloo léegi métti na lool waaye loolu nan la mën nekkee ndax développement bi nga xam ne kat dana lu paasul ab développement boo xam ne demul dikkul dafa mel ni kat wàllum ñàkk gi nag moom mbéy géey di wéy rawatina ci nga xam ne kat ñoo nekk ci biir dëkk bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk tamit ci kaw ga waaye tam gis nañ ne ñàkkum tolloole gi gis nañ ko ci askan wi ak mbay moo xam dafa sooxe wàllum càmm gi wàllum napp gi ak artisanat ak ñàng ak ñàngale mi wàllum tàggatu gi gis nañ ne kat lu ñuul la loo xam ne daanaka fomp ko kat mi ngi ñuy te lool mi nag moom bëgg a ñëw rek daal taxaw suñu kanam kon nag dafa mel ne ñi nga xam ñooy suñu gouvernement yi ñoo war a jël seen responsabilité waaye daal di xool lii nga xam ne mooy saafara si jël effet mi tege ne waaye itam gëm seen bopp wàllum financement ñu mën ko assurer bu ko defee itamit askan wi mën a féex koom gi mën a naat